yar bi na continuer rek yow paas rek nga yow àddina la te yaay si tëbu ndaw yaay si tëbu ndaw gi nag di jàng yar nga xam nga yar am nga tegi nangu nga waaw waaw ndax nit jëla waaw doomu ngay baax

yaa ngi ko ordi kase barke yàlla waaw yàlla mu ndaw baa ngi yaa ngi ko ordi kase Touba Touba mooy yoon de. mbër de sa mag de. dofa ngoog dof bu liis dof nee na day amul arrêt nee biiru yooyu. ñu ngi booy kenn. Ah. alxuraan mais tey Siteu si woon. Ah, waaw tey Siteu si woon Pape Ndaye. suñu mag la moom moo ñuy conseillé di wax suñu lu baax. xam nga du ñu conseillé di jël dooleem di ko def suñu. Mhm. kon xam nga bu jógee États-Unis war nañu ñëw seet si mhm. xam nga kii nii moom. yàlla ko def mais donc Modou nee na wax lu mu gën a bëri day gën a métti si yéen. Modou Lo dañuy bëgg dama bëgg waxtaan ak yow baal yooyu. Liss Modou Lo ah. tey dama ñëw seet sa grand frère. waaw non nan nga ko gisee. non nan nga ko gisee Liss. bu baax. ñoo ko fa am quoi. mais dem lu ñu jot waxante ñoom ñaar Modou ni ko wax ji lu mu gën a métti bëri muy gën ah, ah. nga gis démb ban site gis démb bu pare ci awra mënoon teel guddi sax pare la. nii nii nii nii. say isin laa moo xamee. liis déedéet loolu mënul nekk. wala nga fàttali loolu waa ngeen di waxal. esprit yi bokkul quoi. mais lu boo ñaaw mënul dara. Ama Baldé mënu fa dara la esprit yi bokkul. ok maa ngi ni daal bokkul kon daal yow jàpp nga ne instant yii Siteu combat bu nekkoon demee pare na. après ngeen comprendre. lan la wax si biir kër gi léegi. dañoo aye ñun ñoo aye. daa gën a. waaw bing bang. Pikine am na waaw. waaw jaar na fa. waaw jaar parce que boo waxee làmb rek gën da siy sax sax. Mhm. voilà kon ñoom bu ñu dee ba ayee si ñun dañoo war a ayee par force. Mhm. voilà lan la loo si biir kër dañ ñu si dara. bi nga gisee léegi lu la boo ko gisee dama ko ne gaan làmb dañ koo ayee rek. Mhm. war na alxuraan def nga lépp defal nga ñu lépp. combat bii ne maanaam jël ko rek laa la wax nii. France roi bi. toog ak moom nii. après booy yi si des yëpp mën nañ leen maîtriser. mais man mënu ma àgg de. booy yi si des yëpp dama leen di maîtriser laa la ah, wax. yan booy booy di lappi lappi fii. yan booy di lappi Liss yow yaay président booy yi daal. ca instant bii daal loolu la koy teg waaw. te am na booy yu jël génn nee na mu ñoom jël sa dese. dégg nga ko nee naa ko. combat bi nii. waaw maanaam yow. desalootoon dara lii rek ngeen desal. ndeysaan muy tiiti roi bi. léegi boo ko jëlee. bu la neexee dama nga toog franc laaj fële. yow nga seet li ci des booy des yëpp dama leen di maîtriser laa la wax. mais si jëru waa bi dina yomb si muur loolu parce que muur loolu da koy abal. muur loolu lépp mais boo bëggee mu abal leen ci muur loolu lépp déggoo lu mu wax de. booy bi def koy jàpp ñuus ko ba pare fokkuñ ko ci suuf. muur loolu bi la ruwaal waaw champion waaw voilà mais tamit maanaam lan moo nekk si moom lu war a jël ruwaal bi lu newu si suufam ah muur ko jàpp ne surtout moom comme booy la rek comme yeneen booy la waaw moom loolu la jàpp quoi waroon mën a lépp rek maanaam esprit yi bokkul quoi surtout nit maanaam nit di nga jëm si benn mbir. waaw waaw boo xamul mbir boobu. par lu la war a njëriñ suba importance ba. waaw ak lu tax nga war fa dem quoi. waaw. voilà boo ko demee ba yegg tamit conséquences yi. Mm-hmm. li mu la war a njëriñ suba. Mm-hmm. loolu boo ko xamul rek maanaam mooy sa esprit baaxul quoi. mais saxam mu wax mais saxam moo la esprit boobu yëpp moo ngi ci moom. waaw mais saxam wax nga saxam moo la est-ce que na yomb. daf ñu dama doon natt boobu léegi léegi mosuñu bëree combat royal dama doon natt boobu léegi. waaw voilà dañoo war a teggi. mais secret bi nekk biir jàmm gën lan lii si daa ko secret bi lan. waaw ñun jàmm gën rek. barke alxuraan. gaa yi dafa la jàmm boo yoree milliard. waaw yor alal bu dul jeex daraja doo mën a am. Hmm. boo bëggul jaamu ko man bu laa waay. Hmm. kontaan naa si yow. maman diisoo na ni ñu lay nuyu. ñëpp di bëggee ñëpp. waaw. wax nañu yor xaar ñaax ñu bu baax a baax. incha allah nuyu ma sama frère. maa ngi koy nuyu di ko si yàlla. yaa tout yaa mag yaa tout. seela bi ma jëlal doon. yaa ma doon ak kii am. mu xam xanaa day taw. jëlal procès bi maa day taw. waaw moo loo si ne bu ma baal ma man rek ma maîtriser ko yow. ah. li si jàng bi tey lu leer dañu bëgg dama bëgg waxtaan ak yow bàyyi yooyu Liss da dox du si woon tey seet sa sa grand frère waaw non nan nga ko gisee nan nga ko gisee Liss di waajal bis bu baax ñoo ko fa am quoi. mais dem lu ñu jot wante ñoom ñaar muur ni ko wax ji lu mu gën a métti bëri muy gën a métti sa côté. waaw loolu laay waxu mbër la rek ah. gëmoo loolu. non non gëmoo loolu la. ban site nga gis démb ban site nga gis démb démb ban site. pare. bu pare awra mënoon teel guddi sax pare la. nii nii nii nii. c'est usine laa moo xam ne. lise déedéet loolu mënul nekk. waa ngeen di waxal. esprit yi bokkul quoi. mais lu boo ñaa mënul dara. amaa bëri mënu fa dara institut mën dara. todd balaa ngay wax nee naa la esprit yi bokkul. ok maa ngi daal bokkul kon daal yow jàpp nga ne instant yii surtout combat bu nekkoon demee pare na. après ngeen comprendre. lan la wax si biir kër gi léegi. dañoo aye ñun ñoo aye. daa ma gën a. waaw c'est le big bang. parce que boo waxee làmb rek jàmm gën da si sax sàpp mhm. voilà kon ñoom bu ñu dee ba ayee si ñun dama war a ayee par force wax mhm. si biir kër dañu si dara bi nga gisee la lu la boo ko gisee dama ko ne gaan làmb ji dañ koo ayee de war na alxuraan def nga lépp defal nga ñu lépp mhm. combat bii ne maanaam jël ko rek laa la wax nii franc roi bi toog ak moom nii après booy si des yëpp mën na leen maîtriser. mais man mënu ma egg de. booy si des yëpp dama leen maîtriser laa la wax. yan booy booy di lappi lappi fii. Liss yow yaay président booy yi daal. sa instant bii daal loolu la koy teel waaw. te am na booy yu jël génn nee na ñoom seen seen dégg na ko nee naa ko. combat bi nii. waaw maanaam yow. desalootoon dara lii rek ngeen desal. ndeysaan muy titre roi bi. mais boo ko jëlee. bu la neexee dama nga toog franc laay fële. yow nga seet yu si des booy des yëpp dama leen maîtriser laa la wax. mais si jëruwaa bi dina yomb si mbir mi dañ koy abal waay mën loolu lépp ngeen boo bëggee ma abal leen fi déggoo lu mu wax de booy bi def koy jàpp ñuus ko ba pare fokkuñ ko sala mën loolu la roi champion champion waaw voilà mais tamit maanaam lan moo nekk si moom lu war a jël roi bi lu newu si Siteu ah mën ko jàpp ne Siteu moom comme booy la rek comme yeneen booy la waaw moom loolu la jàpp quoi waroon mën a lépp rek maanaam esprit yi bokkul quoi. surtout nit maanaam nit di nga jëm si benn mbir. waaw waaw boo xamul mbir boobu après lu mu la war a njëriñ suba. lu tax nga war fa dem ko waaw voilà ak boo fa demee ba yegg tamit conséquences yi. Mm-hmm. li mu la war mm-hmm. ko xamul rek maanaam mooy sa esprit baaxul moo esprit boobu yëpp moo ci moom. waaw mais sax mu wax rek sax moo la est-ce na yomb. ndax ñun dama doon natt boobu ba léegi léegi mosuñu bëree combat royal dama doon natt boobu ba léegi. waaw voilà da war a teggi mais secret bi nekk biir jàmm gën lan lii si jaago secret bi lan. waa ñun jàmm gën rek. barke alxuraan. daa yëpp la jàmm gën boo yoree milliard. waaw. yor alal bu dul jeex daraja doo mën a am. boo bëggul jaamu ko man bu liis bu mu. laay waay kontaan naa si yow. maman diisoo ne ñu lay nuyu. waaw maa ngi ñëpp di bëggee ñëpp. waaw. waaw yow nañu yorkaat ñaax ñu bu baax a baax. incha allah nuyu ma sama frère. maa ngi koy nuyu di gis yàlla yaa tout. yaa ma yaa tout. seela bi ma jëlal doon. yaa ma doon laa. loolu ma doon ak kii am. pour xam xanaa day taw. dina procès bi ma day taw. waaw moom la si ne bu ma baal ma man rek ma maîtriser ko yow. ah. li Hey!